formation bu tey bi euh, bi nga xamante ne door nañu ko depuis le premier euh, novembre ñu jeexale ko tey amal ñu njëriñ bu baax a baax parce que tax na ba ñu xam lan mooy njëriñu téléphone parce que lu téléphone mën a def tamit euh, machine tamit mën na ko def parce que dañuy na loo soxla rek il faut nga dem si ordinateur bi parce que am na li nga xamante ne dangay naan téléphone bi pour uyu la kese wala nekk fii Snap ak Snapchat ak TikTok yooyu noonu te amal mën na la amal li nga xamante ne lu gën a am importance comme ñi nga xamante ne ñu ni jigéen ñi di yëngu euh, si rajo communautaire yi permettre nañu tamit ñu former ñu bu baax ndax tax tamit ñi nga xamante ne xamuñu woon lu ñuy defee montage euh, vidéo si YouTube permettre nañ tamit ñu mën a xam nuñ koy defee ak tamit créer suñu compte YouTube xamuñu ko woon. nga xamante ne même buñ fi jógee après formation bi. dina tax comme sama genre yi man nga xam ne ni euh, Kabisa FM laay liggéey dina ma permettre su ma yeggee ñi ma fa nekkal noonu ma mën a leen former si li nga xamante ne jot naa ko jàng tey maa ngi euh, gërëm tamit euh, mooy présidente bi présidente bu RIF madame Loum maa ngi koy gërëm bu baax a baax parce que tax na tamit ñu mun ñu former si li nga xamante ne man moom mosuma woon imaginer ni dinaa mënoon montage def mo ay montage vidéo dem sur le terrain def sama jël sama téléphone bu simple bi def ay caméra filmer jël defar ay PC tamit pour ma mën a ñëw ma génne loolu si téléphone bi mën naa ko monté sax si téléphone bi laa koy monter balaa ma koy dugal balaa ma koy lancé sama page parce que amoon opportunité bi xaw ma woon nu ñuy créer page YouTube ak tamit Facebook dina ma permettre su ma yeggee tamit ñi nga xamante ne ñu ñu xam lool noonu balaa ñuy toog di jël seen téléphone di ko jouer musique wala di setan ay TikTok dina len permettre bu ñu demee sur le terrain ak fu ñu mënta nek mën nañu def yoy non té permettre nañu tamit ñu mëna a créer ay logo affichage ma ngi gëreum tamit suñu formateur bi Zo Maron ma ngi koy gëreum diko ko bu baaxa baax ñaan yalla nak euh projet mi ni mënon continuité inshallah janga jangammeeke mayu Uh, parce que anda in wen def nañu radio communautaire ke ka in def jamono fa andona ye in wen fa njalak fo ke na réseaux sociaux i njanga meke eh, mayu ka andoona yee i ndakwanga rek xan a in eh, eh, sens mayu parce que ka i ndef fa andoona yee ten ref jamano ten ref jamano numérique i njala fo kek andoona rek ten ref réseaux sociaux mais malheureusement parfois i ande ne i mbi'tan ka i koy ande i mbugan nda i ande donc ke i njangna meek a jegan na in daal njëriñ fa andoona wax dëgg fa yàlla mi daal ga am ten xooxe sa paax euh, ga amee daal um dakwanga euh, par exemple mi andoona yee kaam jalta kek andoona yee te ref réseaux sociaux fe um jaltoogu fa kek ref na facebook fi'a live fi'a direct euh, ke jangma meke a taxanga bom dakwanga rek bom a émission xam ɓaato rek an kek andoona yee o buganga vidéo faaxu namum fi'tan mais ka i ndef jamano fa andoona yee jamano tiit a refu donc xaye par exemple in hôpital ne Vélingara ka i ka i euh, ñaxtuwaay ñaal fo yeng pour rek i mbaag jeg hôpital fa andoona yee niveau euh, i njega plateau technique rek wiin we ngaranga maaga pour da mbarnook xana faax donc meek moom maxey dakwa rek xam euh, tiit Macky xana bug o ga'a tiites mayu pour rek ta damta Vélingara ba ta jeg hôpital mais a refangee kaaga yit xam fi ten business parce que waagaam o no marché fa waaɗ client ka andoona yee xam monter ijala jo baɓe dakar depuis tenegay nan fulenga foti kullummak fu bajmi fulay fakkun be kan formation ko regami les femmes à l'ère numérique yankulluma ko regami les femmes à l'ère numérique ɓe kalikten ko seekak mukanaye munkulama manumañmi allum monangallo kon jikaran do bi be ngallu buna fang bum parce que jima man tate won ordinateur e ngol mero ke portable titi titi bare ngol nero yo mo kanay ilanja minye pani jonu no official mbom ibaja émission pani jonnu no official mbom ilanja pop anu sana baje brok bana amange kan bana kore mom jepi bo ilanja pop ilikten katere je mbum wani ilikten mi babe fujuma fati ri fujajak mom di fati kanu mi koko finance mi formation ay kati inesco parce que miñe ngulen tukan waf 100 e kam brok bakila 100 les nouvelles technologies wankul mako rek mi les nouvelles technologies ngulen tukan hati waf donc ñoom des salkati rif ɗi salkati unesco ɗi salpop an ñaadi collecteur la formation ngay joumaron ñoom des salo mamak formation ngay babaj buna fam bamak illa nja inchallah sum jaade mi tey miñe broka bu bopam bu fangmam bu jiye fakil et puis miñe pi ngol libaj sikori sax parce que on collecteur na ya tate nona sikori be kawo bare la nja rek pi ngol ni i rok broka bakila man ngol libaj sikori ngamon karanyin formation to wala min téléphone o ani euh, ordinateur i bee mu parce que niŋ ye téléphone la doo ye a juube ye euh, ordinateur la waroo je i kamera le téléphone o ani ordinateur o bee buka duu ko kiliŋo ke bari bi kabiri nata ñiŋ formation to ŋa téléphone o ordinateur o bee ka duu ko kiliŋo parce que a ka muŋ a ka moolu euh, maakoy jooraŋo muŋ na wo le ka montage ol ke niŋ i reportage ol la aniŋ ka affiche ol dadaa bi yen karandi wol la janto kabri nata ñu formation to nga eh, telefono la njëriñu jobakile formation be mun naati la ñenn activité kono wala mu ñinti sainte fana be keno la ne te fond la uh, eh, uh, eh, président ti la docteur ti parce que docteur bu yalon ko ni bo ni ni ya tarako Eh, i ñanta kata docteur o feejeɗa e jara sa ite fon o docteur o fon mo te fon leti ni tata sur le terrain inata i ñanta ka mum ke ya di do la ya da dadayi e. bi ntel nata ka wole karanjan donc nin te muruta fana nte fana bi nga ne ko mbita ke no la ani na téléphone ola nin tata sur le terrain o formation de ko yettude allah en mo bismillah en mo kadi alhamdoulillahi rabbil alamin parce que formation on no dañi fayida a feewi mi janngi e o formation ko ɗuuɗi e senngo application e portable ji ɗi no woodi application ji heewɗi ɗi anndirante tawi mi anndaa ɗum e ndeer o portable jooni noon mi anndi heen application caméra mi anndi heen application euh, youtube mi anndi heen application facebook mi anndi heen kadi application euh, twitter nafoore heewnde no waawi kam addande en tant que présidentre groupement pasque meɗen wawi fewnde e piiji hewɗi ɗi andirante meɗen wawi ɗi wadde e publié min waɗa ɗi kadi e tuite e sengo ong ji ɗi min woni e golludude ɗi pasque meɗen waɗa transformation en tant que kadi relais meɗen waɗa relais e santé meɗen waɗa e honno e programme ji hewɗi activité ji hewɗi ɗum fof si min rewi e sengo nde jande meɗen wawi hen wadde tuite wawi hen merci beaucoup aux formation ko sago formation wona o waɗayno ko o que formation on wawi continde te kadi meɗen yetti allah radio communautaire radio communautaire ji no walliti e formation ji sugu hono o formation noon so e eh, radio communautaire communautaire ji e sénégal on foof que Troisième session d'une série de formations initiées par le RIF euh, avec l'accompagnement de l'UNESCO, une série d'activités qui vise à renforcer donc les capacités des femmes qui sont au sein des radios communautaires, qui sont soit des journalistes ou des animatrices, à mieux utiliser le smartphone, à entrer dans l'ère du numérique comme le thème donc de, de, de, de la formation. Euh, nous sommes à la troisième session, vous l'avez dit, donc euh, quatre sessions de formation pour 40 femmes parce que chaque donc module regroupe donc 10 femmes des régions, de différentes régions. Pour cette fois-ci, qui en est la troisième, nous avons des journalistes, des animatrices qui nous viennent donc de Sédu, qui nous viennent de Ziguinchor, qui nous viennent de Kolda et une qui nous vient de Tambacounda. Donc, les outils à euh, mieux utiliser le smartphone qui est aujourd'hui incontournable. Toute femme, toute personne, où qu'elle soit, a son smartphone. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas euh, utiliser cet outil à bon échéant parce que parce que euh, au cours de cet atelier, en tout cas, nous avons cherché avec l'appui de notre consultant Jo euh, Joe Maron, qui est un expert donc digital, qui nous a accompagnés depuis le début de ce processus à faire des vidéos à faire des montages vidéo, à créer des affiches, à mieux en tout cas vulgariser les activités que les femmes font au sein des radios. Soit c'est pour des reportages qui sont qui se passent sur le terrain, qu'elles aillent au marché, qu'elles aillent à la plage, euh, dans les rues des différentes euh, donc euh, communes, régions d'où elles viennent, euh, pour parler aux communautés, parce que comprenez que les radios communautaires, ce sont des radios qui sont par les communautés et pour les communautés. Les priorités de ces radios, ce sont donc les préoccupations donc des communautés. Aider ces femmes donc qui y travaillent à créer des contenus, à vulgariser ce qu'elles font. Une émission qui se passe à la radio Gabou interpelle donc les communautés de Gabou. L'animatrice peut parler en langue, la langue donc de l'émission qui sera réalisée, si c'est pour le développement de la, de la, localité. inviter les femmes à participer, inviter les hommes à participer, donner le numéro du serveur vocal de la radio, euh, dire qui sont les invités, quel est le thème donc qui sera utilisé au sein de, de, de, de durant l'émission. Donc ce sont des outils qui sont aujourd'hui incontournables aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons un peu tenté de faire. Nous sommes à la troisième session, vous l'avez dit. Il reste une session, mais cette fois-ci, cette session euh, sera plus pour les femmes journalistes et animatrices qui nous viendront donc de la région de Kédougou, mais également donc de Cafré. Euh, très satisfaite parce que au cours de ces différentes formations, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont au sein de ces radios, mais qui n'ont jamais participé à une euh, formation, euh, à plus forte raison que la formation soit axée sur le numérique. Donc, je suis hyper satisfaite. Beaucoup d'entre elles, quand elles arrivaient, elles ne savaient même pas qu'elles seraient en mesure, au bout de ces euh, quelques journées, d'être en mesure de créer du contenu à partir du smartphone. Et le pari a été réussi grâce à donc l'intervention de notre euh, consultant. Vous l'avez vu également, vous avez créé des affiches, vous avez alimenté vos pages, vous avez alimenté vos comptes. Certains d'entre vous ont créé donc des chaînes YouTube, ont tweeté. pour moi, je suis hyper contente et cela me rassure davantage parce que c'était des objectifs que je m'étais fixés, mais avec donc l'engagement des participantes, avec euh, donc euh, la pertinence du consultant, nous sommes tous arrivés ensemble à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Et je pense que maintenant, la finalité de tout ce que nous avons appris ensemble, euh, donc, sera bénéfique à toutes ces participantes de retour dans leur terroir, de retour dans leur région, pourront utiliser donc tout ce qu'elles ont appris euh, pour l'utilité donc de la radio, euh, donc au bénéfice de celles et ceux qui les écoutent, qui sont les auditeurs pour qui donc les radios existent.